salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi tudd soxna Roqee Diop jóge Kébémer daara sëñ Babacar si Diop. tey ñu ñëwoon en visite ci la maison du Coran ànd suñu ay ndonga pour def quelques enregistrements bi ci kontaan loolu nag di remercier waa maison du Coran ci accueil bi kontaan nañ ci lool daara bi nag yaatu na ndax daara bi ñu ngi wàcc ay xaafis ak ay xaafisa te ku ci bëgg am benn information rek boo ci bëgg a xam mën nga woote ci 77 417 86 73 wala 77 417 86 71. daara ji mi ngi Kébémer quartier Mbaabu am na internat am na externat di ci kontaan tamit ci la maison du Coran ci accueil bi lépp macha allah. la maison de courant moom seen liggéey moom macha allah bu mu ci bu ci bëggee ñëw sax yàgg na. ngeen yombalal ñu ko nag lool ñu rafetlu ko kontaan ci lool ci seen liggéey بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى